kii ñu ngi leen di euh, nuyu di leen dalal jàmm euh, ci euh, Walf TV ak sunu invité mi journée tey ñu ngi am mbégte di dalal professeur Amsatou Sow Sidibé jiite parti politique bi di Kaar Leneen professeur ñu ngi lay nuyu Pierre Édouard maa ngi lay nuyu siyaare la sargal la ak ni nga xam ni ñu ngi taxaw ci seen écran di ñu mm. seetaan ñoom ñëpp nuyu nañ leen. tata ñu ngi lay gërëm bu baax si li nga ñëw wuy si suñu invitation. merci c'est normal ñoo bokk mbir yi. Uh-huh. te xëy na waxtu yi moo laaj ñuy wax. de temps en temps wax dafa jot. dafa jot voilà euh, loolu sax tax na ba jour bu ñu maa ngi lay tooñ sànq ma la ba ñu joxee list bi maa ngi la doon dégg sa tur mais dégguma la pour pour pourquoi bokkoo si gouvernement bu bees bi. ah kan mooy kan mooy kan mooy tànn. Mm. Euh, xam nga constitution bi. président de la république la jox mu mën a tànn ñuy nekk ci gouvernement am loolu la mm-hmm. nekkuma ci waaw c'est vrai te kenn contacté wu la woon nekk woon pour parler ak président déedéet mm-hmm. waaw <laughs> bu ñu xamee ni liggéey nga ak président euh, ci Bokk Yaakaar originel bi nga bokk nekkoon aussi conseiller am jege woon ko lool jékki-jékki après ngeen tàggoo mm-hmm. tey est-ce que c'est encore possible ngeen liggéeyaat wala da nga jàpp ni li tubaab naan point de non retour foofa ngeen toll yaak président non xam nga àddina di wax point de non retour boo màttee mu dog baaxul kon boog mënuma wax point de non retour mais pour la moment man maa ngi ci sama parti mu nekk kaar leneen xaar leneen nekk ci troisième voie politique bi nga xam ni yàgg naa ci liggéey di ci gëstu parce que dama yaakaar ni jikko yi dañ ko war a defaraat bu ñu ko defarul duñu dem fenn Sénégal dafa metti foo laal mu metti jeunesse bi sonn na jigéen ñi sonn nañu entreprise ñu ngi nërmeelu dara doxul ndax jikko yi ñoom ñoo yàqu kon ba ci loolu laa nekk di ci di ci réfléchir di ci liggéey di ci liggéey dama ciy liggéey réfléchir naa ci yàgg na dama ciy liggéey troisième fois bi moom ba nga ko commencé théoriser moom laa wax léegi nag comme gis nga yëf yi na mu demee ñii ngi jaar fii ñii ngi jaar fële ñi nga xam ne am nañu gëm-gëm nii képp nag ku am gëm-gëm nii bu ñu defaree jikko yi dinañu liggéey ba Sénégal jëm euh, dem neneen ak ñeneen euh, ak neneen donc euh, day day day day nekk lu am solo loolu rek la loolu rek la man maa ngi ci di ci di ci bay waar parce que dama am gëm-gëm ni dëkk bi dañu ko war a ragg dañ ko war a sang ba mu set suñu bëggee ñu jëm kanam ndax nii mu nekkee nii wax dëgg yàlla nit ñi lañu ñu waroon gëm wan ko askan wi jëfe ko ak askan wi maanaam jikko yi rafet di respecter seen kàddu respecter euh, seen moroom euh, bañ yaakaar ni ñoom rekk ñoo fi nekk lu ñu am pour ñoom la ak seen ñaleen ak seeni ñoñ fàtte askan wi tant que ñu ngi ci loolu duñu jëm fenn ñun nag foofu la ñuy xeexee suñu troisième voie politique nee na nit ñi dañu am ay àq ak yelleef ndeysaan yoo xam dañu war a ànd liggéey ko ndax mu neex dañu war a defaraat jikko yi pour loolu ji xale yu góor yi xale yi góor yeeg yu jigéen yi jeunes yi sonn nañu jigéen ñi sonn nañu entreprise yi sonn nañu waaw mais dëkk bi xam nga boo ko bëggee régler aussi du opposition nga koy régler il faut nga bokk ci nguur gi bokk ci fi ñuy jëlee ay décision dañuy wax xam nga mën nga nekk ca nguur ga waaye mën nga toog fee di ñëw fu mel na ci seen organe de presse di wax nguur gi di la dégg nit ñi di la dégg ñiy jëfe di la dégg loolu lu am solo la moo tax yéen ñu naan quatrième pouvoir la presse yéen yéen ya euh, euh, dañ leen may doole jëf moo leen may doole parce que ku bëgg wax yenn wax yi ñu dégg la da ngay ñëw ci yéen waxtaan ñu jébbal ko askan wi donc lu am solo la foo toog war nga faa mën a liggéey ca koñ ba mën nga di def say sensibilisation di wax say wax di def say jëf di dimbali askan wi ku sa bët xonq nga dem fekki ko loo ko mën a jàppalee nga jàppale ko kon boog boo nekkee ci nguur wa nga bañ a nekk ci nguur yépp mën nga jàppale sa askan. à propos de jàppale yow bokkoon nga si ñu jàppale woon Idrissa Seck atum 2019 ci candidature am ñu xëy suba rek dégg ko ñu ñi am na ñaari ministre du gouvernement bi moom ñu jox ko conseil économique social et environnemental yow mi àndoon ak moom 2019 est-ce que informé na leen ak lan moo doon sa réaction ba nga déggee loolu. waaw man nag yëguma dara hmm. <laughs> bi ñu paree élection yi dama daan gis euh, idi muy daagu dem ak dikk hmm. waaye daaw ñu wax dara hmm. dafa am ñu mu tànnoon ji wax ak ñoom xëy na ñetti nit la tànnoon di def ak ñoom ci taabal bi ñu koy gis ci réseau sociaux yi Euh, sama réaction bi ma gisee ni nee na pendant quinze mois fukki weer ak ju juróom mu ngi waxtaan ak président de la république di romb nit ñi di dem ak a si kenn xamul lu muy def ma ne ah loolu rafetul ndax ba mu soxlaa nit ñi ànd ak moom dafa ñëw fëgg ci seeni bunt nit ñi ubbil ko mu waxtaan ak ñoom ñu campagne mu metti ba bëgg a dee waaye gëm-gëm ak bëgg jàppale askan tax ñu di koy def su demee nag ba am lu mu xalaat leneen waay waay waay na ci diisoo ak ay ñoñam ña mu àndal bu fekkee ne nag dañu jékki-jékki rek mu génn ci presse bi naan depuis quinze mois mu ngi waxtaan et eh bien loolu dañu naan rafetul. waaw ah, mais Idy 2019 aussi coalition électorale la woon rek. dama bu élection ku nekk dem gérer sa problème. dama ni dinaa ñëw ci Idy 2019 ma ni rafetul. parce que bu fekkee ni da nga ñëw fekk ci ay nit laaj leen ñu d'accord ak yow booy def yi leneen wa aajoo na nga ñëw wax lañ ci bokk tuuti kas néew waaye ah man def naa lii depuis quinze mois maa ngi maa ngi euh, négocier dafa rafetul foofu laa doon wax ni politique bi il faut ñu defaraat ko il faut ñu raxas politique dafa salte te pourtant politique du lu salte ak ak yelleefu doomu aadama la te euh, communauté international bi àddina bi bi ñuy tëral lan mooy ak ak yelleefu doomu aadama yi ñuy jëkk a génne ni moo baax ci askan nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñi nekk ci kilifa yi nekk ci yeneen religion yi ñoom ñëpp dañ ko daan def politique ndax dañu daan bëgg gérer euh, fa ñu nekk ak nit ña eh bien tey yëf bi dafa tilim nit ñi comprendre ñu ko léegi ñu dem jàppale askan wi dañuy def rek ay damier dañuy damier suba ba ngoon pour xool naka lay def ba jaar fii ba génn fële ba dem yegg fee te yow faalewuloo askan bi loolu laa doon dénoncé man nag c'est trop léegi yéen waa communication journaliste yi waaye dama leen di ñaan ngeen sensibiliser nit ñi sensibiliser lect euh, euh, euh, leaders yi sensibiliser dolli leen dee leen dénoncer. au mm. ngeen jël nen euh, nit par exemple koo xam def na loolu ba arriver kooku waru leen ko sax xoromal parce que la mu def baaxul. war ñu ko ériger en modèle. waru lañ ko érigé en modèle parce que ñeneen dañ naan kon boog nii laa war a def man tamit daam yee dugg fi génn fi làqu génn ba arrivé ci lii mais loolu yéen mën ngeen ci wax wax leen ci ba mu dagg ci Sénégal donc mille Idy 2019 nga may wax waaw pour élection 2019 yi la woon jeexee kay ba mu jeexee nag li jekkoon la mu euh, bien sûr dinaa ci ñëw mais la gënoon jekk mooy comme fëgg na ci bunt nit ñi mu fëggaat ci buntu nit ñi rek ne leen jaajëf loolu buñ ko amoon rek kontaan jaajëf buñ ko amoon kontaan waaye euh, dem di def yenn yi ci ginnaawam da man dama trouvé ni que du noonu léegi nag. da nga regretté li nga ko soutenir. du ma rëccu rëccu non non je le ferai encore si j'avais à le faire fàtte nga phrase boobu le sida amul problème du loolu mooy problème bi mais mani man. leaderu parti politique la bu tudd kaar leneen xaar leneen ñun ak troisième voie politique nga xam ni dañu ne Sénégal de valeurs jikko yi nañ ko rafetal bu ñuy rafetal jikko yi corruption dootul am wax lu dul dëgg dootul am liggéey day am góorgóorlu day am jom day am te kon résultat yu neex day am foofu laa nekk loolu moo ma intéressé actuellement. waaw mais il faut nga wax ñu tamit yéen a may wax loo ci <laughs> affaire. <laughs> waaw yooyu mais wax c'est parce que monsieur d'actualité te bëgg naa xam tamit lan mooy sa avenir ci Idy 2019 est-ce que da ngay continuer di ànd ak moom. am wala fu waratul am. Mhm. parce que 2019 la woon pour élection yi la waratul am leneen xanaa mu créer leneen bu créer leneen ah xam nga mu àddina mënuloo wax euh, bo doo mënuloo wax ni dootul am. mais man li ma saf tey mooy man lii ma nekk parti bi ma yore muy kaar leneen nga xam ne nit moo ñu soxal ak troisième voie politique jikko yi donc nit ñu nite mooy suñu problème ci loolu laa nekk fépp foo ma gis moom laay lijjanti fépp fu may wax moom laay lijjanti lële yaa ma ci laaj moo tax ma wax ko. waaw parce que ñu laaj la ci parce mooy actualité bi. waaw mais man ne eh, xamal la rek moo fi teg xamal ma rek ni xamal rek lenn ni man li ma intéressé tey mooy ci lii ma nekk damay une femme leader doon parti politique jigéen bu yore parti politique bëgg defar askan wi jàppale askan wi parce que bu ñuy demee bay def politique dañu war a defar site la cité fi askan wi nekk jàppale jeunesse bi ba nga xam ne lii ñuy def di dem ca mbëkk ma di des ca géej gi maa ngi jaale seeni famille nest pa pas loolu waratul am waaye ñi ma gisee politique gu tey faale wu ñu yooyu li ñu faale mooy li ñu man sama ay moowu dii la yooyu sax duma ko wax parce que kon damay man ci sama bopp la ma war a def defuma ko mais faale wu ñu ñooñu yore seen damier di seet fan la ñu war a jaar jaar jaar pour dem ca poñ bële xale yi pendant sa temps ñu ngi désespéré amatuñu benn benn dañu dañ ndeysaan dañu yaakaaratuñu yaakaar dafa tas yaakaar dafa yàkkeeku donc xale yi dañuy dem ci gaalu looco yi mu jaral leen ñu des ca géej ga xam nga loolu waaw mais population yi aussi est-ce que yaakaaroon war a jël sa responsabilité ndaxte li ngay dingat nii bu élection jotee ñoo ñu ñooy ñëwaat joxe saako ceeb ay tissu ñu voté leen ah il faut ñu ñu sensibiliser leen nag ñu xam lu ñu bëgg nag ñoom i tamit te j'espère que loolu dootu fi am wax dëgg yàlla ñu jox la saako ceeb nga wote après ñu faaleetuñu la amatoo loo lekk amatoo loo naan loo say doom dootuñu jàng mënatoo lijjanti dara amul société sax boo mën a jël ne kii société bu am doole la mën na ma jël jëlal samay doom pour ñu liggéey mais loolu ku koy def mais sàggan nga loolu dafa war a jeex nag loolu man dama yaakaar ni yéen da ngeen ci am encore une fois rôle <laughs> yàllaa leen ko teg gis ngeen ni ngeen defee liggéey bu rafet bi ngeen liggéey bi fii euh, Covid 19 ñëwee dama bëgg ngeen jël boobu doole ngeen defoon ci Covid ngeen def ko tamit pour. leeral xelu askan yi nañ leen bàyyi di leen nax ñi leen di nax nañu xam ne ñu ngi leen di amal bàkkaar wax dëgg yàlla ndax yaakaar population noonu la waaye population bi léegi na ubbi bëtam am na ñoo xam ne dañ leen yéene nañu jàppale ñooñu te bàyyi di dem ñi leen di nax nañu dem ba gis mm-hmm. ah? waaw voilà ci gouvernement boobu yow ku la xam xam ni da nga yàgg di défendre la cause euh, féminine et tout gouvernement bi ñu gis ni 33 ministres la ak 4 secrétaires d'État yëpp nag boo ko boolee muy 37 mais 8 euh, jigéen rek ñoo si nekk di euh, juróom-ñett naka nga ko jàngatee mbir boobu. li ma ci jàngatee daal moo di ne président Macky Sall li tubaab di wax raté la coche maanaam fa mu waroon a teg ba aali këllëg gi mu waroon teg baaraamam daf ko raté léegi ñëpp wax nañ ko ñëpp xam nañ ko réew bu ñu joxul yenn responsabilité jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ca biir askan wa waaye da ngay jaar nga fa jaar la fi nga war a jaar kon boog moom foofu moom dafa raté moom foofu moom dafa luppee li ma doon def daf ko luppee mais parce que dañu naan euh, assemblée nationale ba ñu fa instauré parité pratiquement si la niveau débat bi wàcc est-ce que loolu yow ànd nga ci loolu ànduma ci man damay seetaan télé bi bu wàccee ci ñaar yi yëpp la muy góor muy jigéen assemblée nationale ci boppam moom moo joué rôle bi mu war a joué ndax nañu waree former ña fay dem di leen wax lan mooy assemblée nationale lan la xaar ci yéen foofu la problème bi nekkee et puis defe naa ni lii wàccee niveau bi mooy ni pouvoir bi dafa ni ay nitam ay députéem dee leen tàccu rek ñooñu duñu wax bu ñu doon wax. niveau bi day ñoom ñëpp am xel waaye dañoo ñemewu la wax. bu ñu doon wax mais dañu rek. bu ñu do mais parce que pouvoir bi moo demee noonu moom moo ni dee leen xeex ba ñun ñu toog fii xeex leen ba ñu toog fii su ko defee ña nekk assemblée nationale dañu kurpañarante rek du ñu wax la ñu war a wax ndax boo ko waxee sax ñu génn la ndax gis nga affaire troisième mandat bi nu mu demee ku ñemee wax ñemee développé mais dañ lay génne kon boog. loolu euh, dafa nekk problème man nag bu ngeen ma gisee tey ma jóg di wax wax dëgg yàlla c'est parce que li ma gis dafa dafa tooy xol xale yii ni ñuy desee ci géej gi ñu ne la ci benn semaine lu mët presque juróomi téeméeri suñu doom yi ñu nga ca biir géej ga mais loolu dafa metti léegi ñëpp a war a jóg nag. te réew mi mu ne dara xew fi. nañu jóg man de jóg naa mm. man. jóg naa duma ko nangu xam nga lu tax duma ko nangu suñuy doom ak suñuy sët lañu dañu am jom moo tax ñu dem ca mbëkk ma te. am jom te waru tax xaru ndànk defal ndànk xaru la ma ni <laughs> gis nga di nga dem ci coono façon goo xam ni ci coono coono gi ñàkk indi ko waaye coono gi ñun waajur yi ñu indi ko parce que waajur yi li ñuy def jàpp seen doom yi na yaa ñàkk jom xoolal kee la mu indil euh, yaayam yóbbu na yaayam màkk jëndal na kii oto mais kooku xale bu am sensibilité day daal di bëgg dee sax buy dem ca géej ga dafay xam ne xëy na mën na dund wala mën pression sociale bi ñuy teg ci ndaw yi la ñu war a arrêté du loolu rek pression waaw pression ndax ñàkk gi ak ñàkk liggéey te man ci côté ñàkk liggéey boobu sax damay yenn saay damay damay fippu parce que bu ne boo nee li tax xale yi amuñu euh, xale yi liggéeyuñu employabilité la du emploi mais employabilité maanaam du mbirum liggéey liggéey yaa ngi fii mais nit ñi mënuñoo liggéey mais loolu c'est grave bu fekkee ni yow dañ la confier xale yi jàngal leen liggéey formation professionnelle nga ne xale yi mënuñu mais ci kan la ku ñu war a wax lu lu ko nga xam ne moom la ñu dénk pour muy defal formation xale yi mu dem naan employabilité c'est très grave léegi il faut ñu jóg wax parce que léegi yëf yi dafa déborder mais dafa déborder dafa doy waar. léegi mais jafe-jafe yooyu ba ñuy dugal def gouvernement bu bees bi dañu ne euh, en fait pour relance économique la te taxawul as taxawu askan wi. waaw mais man gisuma gouvernement bi dugal ñeneen. gouvernement bi ñi ñu génne ñi ñu changé bare na. ku ci nekk dañ la joxaat sa place ba nga nekkoon wala ñu jël la fii teg la fee loolu la ñu def de à part quelques personnes yu génn te xëy na sax ñooñu wax dëgg yàlla la ñu mënoon. ah bu ñu ko ñàkkee moom. <laughs> day day gën a jël si kenn jigéen comme yow Aminata Touré euh, génnam si gouvernement bi. Euh, ah man de moom génnul ci gouvernement bi conseil économique et social. la génnee bon pouvoir de manière man nag man xam nga man euh, les question internes. interne au parti même pour ma pour ma wax ci day jafe parce que man ku ñëw di wax ci di ku ñëw ku ñëw di wax parti boobu mën na réagir mën euh, na euh, dem ba laal dëkk bi aussi moo tax léegi parti au pouvoir dañuy intéressé aussi li fay xew voilà man man du boobu aspect moo may intéressé xam nga ba aspect moo may intéressé ci génnam dañu génne jigéen teg fa góor loolu man moo ma intéressé ci affaire u départ génne jigéen teg fa góor mais mais fan la jëm xanaa xaalis bi ñuy ñàkk yëpp pour expliquer dugal ci bopp nit ñi ni jigéen présence am dafa am solo suñu ko ci boolewul dara du dox mais loolu luñ koy def président de la république lu mu def loolu lan day jël day bokk day gis séminaire yeeg waxtaan yeeg document yeeg naan waaw te du ko jëfee mais loolu problème la c'est un problème ah il faut que ñu waxante dëgg ah jigéen dafa remplacer moom aussi ah. Aminata Touré jigéen la fa remplacer Aminata Tall. ma ni dama ni bi yoon lii nga ma laaj mooy actuel nga ma laaj. Hmm. laajuloo ma la passé. fii laa la ni dañuy jël jigéen teg fee jël góor teg fii loolu dañu ko nangootu gis nga jigéen yi nangootuñu xam nga lu tax dañu xam seen gëdd dañu xam seen wareef. dañu xam seen responsabilité dañu xam ni dañu war a dugal ci mbir yi ndax suñuy doom ñooy nekk ca géej ga ñoom lañuy ñuy ñooy suux loolu il faut ñu xam ko muy lu méttee méttee méttee faut ñu xam ko man yi jigéen ñi dañ leen di dugal léegi parce que suñu borom moo ko bëgg xam nga xam nga suñu borom moom moo jox jigéen ay axam ak ay yelleefam ba pare ne ko yow ci société bi da am solo. bu fekkee nag ñun suñu réew tey ba tey ñu ngay def loo xam ni xëy na suñuy maam daawuñu ko def parce que ñun suñuy maam avant yenn yi euh, euh, dugg ci ay ci histoire bi dugg si ci ci réew mi mais dañu fonkoon jigéen mais léegi nii régime actuel bi mais day wàññi doole jigéen loolu duñ ko nangu mm. waaw gouvernement bi dañ fi génne ay nit yoo xam ni ñu bëri jàpp nañ ñu ngi def liggéey bu rafet ñenn ñi nag ne ah est-ce que président sax nekkul di bëgg troisième mandat parce que ñoo ñooñu mu génnee dañoo jàppoon ni dañoo am ay ambition euh, politique est-ce gis nga à travers remaniement bi que ni président volonté troisième mandat bi daf ko gën a affiché lenn daal laa bëgg wax dañu ne magom waxoon naa ko moo gën magum foogoon naa ko def naa loolu xamoon naa ko xamoon naa ko xamoon naa ko man yi président la république day màtte walla du màtte bu mu dugal loxoom parce que affaire troisième mandat ci Sénégal li mu mën a indi ci mettit xëy na moom daf ko xamul waaye na xool la xewoon yaa ngi ko doon wax sànq euh, ci taawu euh, élection bi euh, président Abdoulaye Wade ware waree joxe lenge bi ay deret ñoom Mamadou Diop ak ñeen dañu tuuru mais na xool Guinée gine la fa xew tey waxuñu ko de nit ñaa ngay wadd comme ay ay ay ay weñ ñu leen di rey ñu ngi siif jigéen ñi ñu ngi def jigéen ñi lu metti lu tara tara tara tar Côte d'Ivoire man xam naa la fa xewoon bi fa guerre ba nekkee ndax man Nations Unies ñoo ma ni ma dem saytu seet nu ñuy def ba ba xeex ba ba xeex ba Euh, euh, jeex mais loolu lañu indiwaat lañu doon wax et et ou xawma ca phrase yooyu ca constitution ba ba mu indi woon guerre civile loolu la ñu defaat troisième mandat alors yooyu quand même ñun Afrique dañu war a di rafetal suñu der parce que boo demee ba diggee wax wax dafa garaaw kon balaa nit di wax dañ ne sa làmmiñ na nga ko tourné juróom-ñaari yoon. waaw mais fii dañ naan politique électorale moom euh, promesse électorale moom ñu ko gëm rek la la engagé. mais loolu rafet ñu nag suñu bas rafetul de promesse waaw mais pas promesse ci yuux yu loo xam ne day engagé bakkanu réew bakkanu réew laa wax loolu kenn du ko fowee kon ba président de la république li ñu koy wax. moo di na na dem changer constitution bi parce que laam-laame bii am ñii naan mën na ko ñii naan mënuñu ko loolu dafa war a dagg xelu nit ñi dafa war a dem ci leneen maanaam jàppale askan wi jàppale xale yi jigéen ñi jàppale entreprise yi kon boog na dem ak a yomb comme moom moo waxoon te wax dafa nekk lu garaaw moo waxoon ci kal mu ñëpp kanamu soxnaam ak famille am ak dëkk bi ngir yàlla ne ñaari mandat lay def na dem defi ko parce que ni ñu ko bindee leerul na dem constitution bi ñu changé ko wax ni mandatam yi bu juróom-ñaari at bu jëkk ba la ak bu juróomi at bii mu nekk bu ca paree day joxe lenge gi na ko def su ko defee jàmm ne ñooy. nee na moom bu ko defee euh, parti am euh, mën na tas maintenant kenn dootul liggéey. ñun sañ yoon nekku ci loolu. li ñu bëgg mooy <laughs> suñu xel dal suñu fit dal. yow constitution bi leerul. ah constitution bi nii. leerul article bi pour yow leerul non leerul quand même. ni ñu ko bàyyee nii. ni ñu ko bàyyee xam nga lu tax. Ah. constitution bu njëkk ba. sept ans la doon wax. ñu changé ko def cinq an ñu daal di ne mandat bu nekk léegi. juróomi at la te ñaari mandat rek la nit mën a am xam nga ku mu neex nga ni ah nee na juróomi at la te juróomi at yooyu ñaari nit ñaari mandat mën nga ko ci am question d'interprétation dafa leerul leerul am na ñoo xam ni dañu ne bu juróom-ñaari at ba la ak bu juróomi at bi ñeneen ñi juróom-ñaari at ba paase na ñaari juróomi at yi la ñu wax xam nga ko leerul. c'est fait exprès wala déet. ma ni. Euh, ah euh, parce que ñi ko bind ay kàngam la ñu ci ci wàllum constitution. waaw ça ça peut être fait exprès comme ça peut fait exprès xam nga bu ñuy bind moo tax di bind di ko jébbal Pierre-Édouard mu xoolaat ko dem ca nguuda mbuub joxaat ko ko dem keneen ku nekk nga xool xool xool ma amoon naa boobu problème ak euh, Ablaye Wade fàtte ngeen ba muy def constitution te mu mere ma ndax dama ni ko man yi gis naa bii bii bii il faut nga changer ko te mu mere woon ma 2000 dégg nga mais c'est comme ça constitution boo ko bindee danga koy joxewaat ñeneen di koy liir di koy liir di xool lan ma mën a nekk problème ci biir sinon lii lay indi ay ay ay waxantu ay ay ay dugg fii génn fii te loolu du sañu yéene bëgguñu ko. Hmm, voilà jërëjëf professeur. lay gërëm bu baax professeur Amsatou Sow Sidibé présidente euh, parti bii di na ñu ngi lay gërëm bu baax vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant suñu euh, invitation <laughs> bien voilà merci mbokk yi fii la ñu yem ak yéen euh, ci invité mi-journée bu Walf TV ñu leen di jox rendez-vous suba ak jàmm jërë ngeen jëf